aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim bokk yi nga xam ni yéenay bàyyi xel Wilaya TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal sunu borom dolli ko sàmm dolli ko kattanal ba mbooleem naa li nga xam ne nal na ko ci liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul yàlla sunu boroom defal ko kattan gu mu ko yëgalee tànt ko taalibe yi bokk yi ñoo ko gisandoo ñu ngi ci pàkk bu tedd bii di Taif Mbacké kenn ku ne itam xam waajtaay wu tedd waaye bés bu màgg bi nga xam ne jub dañ ko te muy bésu sang bi sallallahu alayhi wa sallam te muy guddi mawlidi nabi di gàmm gi nga xam ni baaxoon nañ ko ànd ak yéen at mu ne waaye bu ñu demee ba diwaanu Louga wàcc waay wu am solo yi nga xam ni mën naa ni Serigne Khadim Louga mi nga xam ni mi ngi jële woon diggal ci bàyyam bu tedd boobu di Serigne Mbacke Mohamed di dundal bisub sang boobu foofu ca Louga at mu ne gis ngeen wàccuwaay wu mag wi wala empleur bi nga xam ni gàmb gi dina ko am waaye nag ñu ñëw tuuti ci jaar jaaru Serigne Khadim ñëw fii ci pàkk bi di Taïf Mbacké kenn ku ne xam ni lu bari fi la ko defee muy am njàngam waaye yeneen ak yeneen yoo bari yëpp yoo xam ni fii ci Taïf la ko defee mel ni nag mag ñi nga xam ni jotaay yooyu fekk na leen fi ñu ngi fi ba tey fas nañu yéene ànd ak ñoom waaye nag ñu wax ñu nan la Serigne Khadim doon dund fii ci Taïf fas nañ yéene ànd yéen ci ñaar ci ay reportage benn bi danay ànd ak Serigne Baye Modou moom itam di kenn ci mag ñi nga xam ni xam na lenn ci dundu Serigne Khadim lu ko fii ci Taïf waaye itam kenn ku ne xam ne bu ñu waxee daara am yaayu daara maanaam ki nga xam ne moo lay taxawu ci mbooleem yi nga xam ni ay bëgg-bëgg la wala taxawu la la ci sa wàllum njàng kooku yi ñu koy wooy yaayu daara fas nañ ci yéene ànd ak soxna Khady Ndiaye moom itam mu andil ñu lenn ci dundu Serigne Khady Mbacké Louga fii ci Taïf waaye nag nan la fi nekkee woon. kon mbokki internet yu Wilaya TV ñi nga xam ne ñoo ñu bàyyi xel ci YouTube bi yëpp waaye nag ci site bi muy wilaya point sn nañ ànd ci reportage yu am solo yooyu ay ci kon ñu dem. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani noo ngi siyaare bokki taalibe ak bokki jullit di siyaare sunu sang si nga xam ne si amuñu moroom hmm, rawatina waa kër sëriñ Cheikh rawatina waa kër sëriñ Mbakke Mohamed hmm, noo ngi leen di xamal ne wax ci ñoom dara sax warunu ndax sunuy kilifa lañu yoo xam sunu lépp ñoo ko xam ñoo ko man ñoo ko yor ñoo ñuy dimbali tey ak ëllëg waaye nag noo ngi tuub sëñ bi lu ci kàddu yi lu ci dëng lu ne rek fekk na lu jublu leneen loo xam ne bu doon or la jamaa ba la ñuy seet noo ngi siyaare sëñ xaadim bu baax ndax way jërongu sell wa Euh, ba mu leen boolee yóbbu leen kër Baye Baara mu sell mi doon magum taalibe moo xam ni sëriñ bi rekk ko safoon ak taalibe Taïf euh, sëriñ euh, Cheikh Mouhamed Mbacke gis ak rafetalu alxuraanam ak taalibeem ak yarbam te daa boole mu yarub taalibe mu yëbbu woon fa Euh, sunu euh, tuut tànk yu yooyee fa nekkoon di sunuy sang mm, euh, ñoom ñëpp sax ñoo bokk benn grade bi ñoo bokk benn dayo bi ñoo bokk wenn melo waaye kii nag ginnaaw nga xam ne maanaam yàlla dafa dogal mu yeble si fi nuy wax waaye li ñu wax kat lu sëñ Mbàkke soxna mu meññ rek lañ ko boole ku nu safoon la ku nu bëggoon la ku yaakaaroon la ku amoon kersa la ku amee di teggin la ku bëggoon alquranul karim la ku safoo woon taalibe yëpp magi taalibe yëpp mosoo taseeg moom ci mbedd sëñ xaadim siggi xool la musoo dégg xaqataay musoo seen mu bokk ci gone yu bëri ci li nu seetlu ci noonu nag booba noo ci mm, biir kër sëñ bi liggéey di bokk ci xéewal yi mu daa joxe nu daa ko toppatoo waaye dañ daa jële xéewal nag ñu dina ko fa yónni nu daa ko yóbbu ci ñoom waaye sëñ Xaadim moom mii kat na nga xam ne man dafa daa ñëw fii ci kër gi amuñu moroom moom ku ñu ku ñu dugal ci seen bopp rek la ñu waaye amuñu moroom lenn lu sax ci sëñ Touba lu am morom amul. mu daa ñëw fii ci kër gi di fekk si Aliou Guèye sama doom mi mag ju fi nekkoon fi fi man mu daa fekk fii ñu daa àndandoo di dikk ci kër gi buñ toogee ba yàgg ñu ànd delluwaat ca daara ja moom mu ñibbisi booba da koo safoo woon lool. ba fii ne ñi ngi jokkoo eh, wax ji mënta gudd ndax man dama mënta wax ci yii lii day ndigal te sañu ma barkeelu waaye na ngay xam ne sëñ Xaadim moom mii jëmm ju sell ngoog jëmm ju teey ngoog jëmm ju baax a ngoog jëmm ju ambal ñépp aw yiw ngoog jëmm ju tabee ngoog jëmm la joo xam ji eh, seetu kenn ab gàkkam ku ko romb te yóbbu gàkk sax bu yàlla boo siggee boo xoolee jëmmi sëñ xaadim sab gàkk dana fóotu ndax melow kàkkatar la ku ni garab ni kàkkatar di yéegee garab di ko nuru ku jox so eh, sëñ xaadim loxo la woon ci yow yow léegi jëmmi sëñ xaadim a nekk ci moom waaye la yoon ci yow fóotu na noo ngi koy siyaare li nu bëgg a wax mënuñu koo wax lépp waaye xam nañ ne mooy Cheikh Mouhamed Mbacké ci lu wér a wér a wér a wér ku mu jubloo ku jubloo defar rek soo defarul ci yow la waaye moom lu ko të amut noo ngi koy siyaare tey sant yàlla bi mu nu boolee ci boppam sunum xel dal na moom ci moom lool yàlla na ko sàmbarum yàlla dolli ay ndimbal mm, te musal ko ndax ñaan baax na damaa man magum taalu bi mu ne wax Moodu ñaan baax na nañ leen di ñaanal Mm, seen bëgg ci ñun yàlla na ko sa yàlla def ñun sunu bëgg ci ñoom yàlla na ko sa borom yàlla def sëñ Xaadim maa ngi lay siyaare di la gërëm di la sant waaw bu ma toll woon ne Baye Modou mii ma la jébal kat njàng mi rek a ko fi téye de waaye kon maa ngi foofu fi yow di la xasaay di di liggéey waaye nag maa ngi lay teereel na euh, maa ngi lay euh, bëgg lool defoo la lool yal na yàlla motti li sa yéene ci ñun barki sëñ Cheikh moom mu tax waxtaan wi jóg mu yomb a waxtaanee lool ba mu fiy dikk ngor la fi indi ak diine ak jom ak fulla ak fayda ak mat sëkk ñu sédd ko cër yoo xam ne ba mu koy am yàgg na mu dikk yokk ko ci kër si Mbàkke Soxna Lo ndax xaarim ci angone moom angone jaari wu ci de daa tëb tëb am fulla am fayda am jom am ngor am diine am lislaam ndeyam jedd ko am jom te bëggum njàng te bëgg alxuraan bañ ko indee ci kër gii soxna Njóoba tàkk lu mu fi dëfu de xaw ma ko ci àdduna ci ay tiraanga ak i ak i ak i jub soo def masaa taxaw fii ci buntu kër bi ñëpp dañuy jóg taxaw bég lool sant lool waxtu bi day bu ko taxawalee dañuy wàcce di sippi di wàcce di sippi loolu daana di jëriñoo dañ koy jëriñoo li muy mujjee wàccee xar lay doon moo xam ne si danga naan lii doomi xar moo du doomi xar de lii danga naan lii doomi xar ndoom bay baat day takk ba jëndee ba kenn xamul ñu xar mi tool ci ñu sippi ko mu daal bàyyi baara mu ne ah, mu lii ma lépp daara jëkkoon di muy ay xar ay ginaar ay nen marmati marmati marmati beñe yoo xam ne bokk na suñu beñe bii de marmet bi bokk na suñu beñe ji andi ay saabu ab xaalis lépp fii garab gi dañuy tlal mu ñu rey xar mi koñ bi bépp ci lañuy añ joganiku reer lekk ba suur soxna Njóoba tàkk ko doom jëlee ci kër gi yàlla mën na ci def barke bañ ca jógee maam Faati Fall moom mi jur sëñ Ismaïla moom sañ Mbacke soxna Lo sëñ Ismaïla sëñ Cheikh Mbacke maam Faati Fall ndeyam soxna Astu gi mi ko jur daa defoon sëñ xaa daa defoon Ismaïla muy sëñam nee na da daa toggee njëriñam ay booli daf ci bii ay ginaar bii mu daf ci am xar boole koog lu war a àndal di ko ko fii soxna Xadi Jàggoneem yëpp ma seen ndey daara sëñ Baara ma ca Ndakaaru sëñ Fallu sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh sëñ sëñ sëñ Bass mi yóbbu fi waaye jaar na waaw jaar na waaye ñeenti gone soxna Xadi Ja doomi soxna Xadi Jóob ñoom ñëpp jaar nañ ci daara ji ci daara ji la ñu nekkoon fi lañ jàngi alxuraan daara ji gis nga boo dikkee wet gii fii fii rek ni ñëgu ñax bii fi lañ def ñetti néeg benn bi kaas kare bu mag la gone Mbàkke Mbàkke ci lañ nekk benn bi ay néeg yeneen ñaari néeg ñoo xam ne ak bordaas sëñ Mbàkke ka fi daaj ñu nekk fi ñu defoon kees kër gi yéenti kees la woon kees ge mooy keesu daara ji kees gi am na néegu tabax benn mooy keesu Baay Baara Juub kees gi di keesu jigéen ñi juróom benn ay yoo xam ne booba jamono ji bokkul na tey fukkeen daari pepp jox la sa loxo nga ci yaakaar da nga koy soq ko togg ko ay laax di ko taaj def ñett dab ba ñeent waxee yaari do dab ñaari dabi mbàkke mbàkke ndabal donga ndabal jigéen ñi ndabal góor ñi mag ñi jigéen ñi koy togg am jom lool te am fulla te am fay dina ngoo liggéey ñuy dem tool waaye sëñ baara musta bay loo gën a mbàkke mbàkke yi soxna njóoba tàkko lim fi def yàlla rek ko mën a fay doomam bii yàlla na ci yàlla wàcc barke yàlla na ci yàlla sutura yàlla na ci def xéewal sëñ xaari mii ak yaram bi ak tegganam bi ak suturaam si ak xiifut mërul on daal ko mos a jaar ci ndongo buñ masaadi añ day wax baax na boo ko ne sañ xaar ma dama bëgg a togg ñale mu ne ñale ah tey jii laa jëkk a dégg ñale tey tey laa ko jëkk a dégg ñale ñale xamul lu ñuy ñalang xamul luy laaxu caaxaan xamul dara boobu la ñuy togg waaye moom xiifut xiifut de xiifut mërul tumuraag fu defu dara ndayam nag lu ne def na ko ci àdduna noo ngi ñaan nag ci kàttanu yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ak barkab Cheikh Modou Moustapha ak sëñ Cheikh Mbacke ak na Mbacke soxna loo fi jëlee yàlla na ci yàlla def barke yàlla na ko mbooloo mi nga xam ne ba mu jógee daara ko topp yàlla na yokk tamit wàññi ko jëm kaw te barke ak wér ak sutura ak mucc ak xéewal ak yokk tànk kanam yéen ñi nga xam ne ñooy dox jéego yii yàlla na leen yàlla fay daf leen ngeen di mag tey mag ñu yal te ànd ak wér ànd ak sutura daara ji nag moom li fi xew moom jaar fi ci Mbacke Mbacke mënu maa wax ñëpp moom mënu ma wax seetur ñëpp moom ndax mënu ndax sëñ Cheikh Abdou Rahman sëñ Modou Xabaram sëñ sëñ Modou Boussa Jàng waa kër sëñ Dan Xaliloo waa kër sëñ Dan Mariama Daam ñëpp jàng nañ fi alxuraan mokkal kon noo ñaan ci kàttanu yàlla daal yal na yàlla wàcce barke ak wér ak mucc ak xewal Cheikh Baara Diop mi nga xam ne moo doon topp loolu sëñ Cheikh Mbacke di ko lëggee nag sëñ Mbacke soxna loo yal na a yokk leen am te barsàq tax na ci barkeem ci barke borom dëkk bi jërëjëf a na yàlla fay daf leen li di mag ñu mag ñu ñaam am sutura am tiranga fu ngeen bëgg a yegg yàlla mi yegg la jaam yàlla ñu fay yeggale sëñ ba sëñ Xaadim nag saa bu moom jënoon moom nekk ba ban fa fekk muy maam Xadi Njaay nee li sa yaay def ci daara ji nit du ko fi def yàlla na fi am lu kenn mënut am ci barke borom dëkk jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñoo ko déggandoo muy kàddu yu am solo yoo xam ni waaye itam bettuñu nag ci jëmm ju tedd ju màgg jooji di Serigne Khadim Mbacké Louga kenn ku ne gis nga kàddu yi nga xam ni yëkkati nañ ko jëmale ko ci moom waaye nag ko xam fi nga xam ne fi la Serigne Khadim jóge ci wàllu wayjur loolu di la bett ci moom ñoo ko déggandoo muy nit koo xam ni tut tànk la woon ci giseen waaye musta jëf ci fi tànk ñoo ko déggandoo ci kàddu yooyu nga xam ni mag ñi yëkkati nañ ko ñi nga xam ne dundoon nañ ak moom waaye itam mu nekkoon nit ku am yërmande yërmande ci doomu aadama waaye nag mat ci côté yépp muy ci wàllum dimbalante waaye itam ci wàllum melukaan ak ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon waaye nag di téere bi yàlla bii di alxuraanul karim ñoo ko déggandoo dégg ngeen yitte ji mu ko joxoon yitte ju màgg ju kawe ji nga xam ni amoon na ko ci te mu nekkoon nag tout tànk ci sayir kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne andiloon nañ leen ko woon ci dunduk sëriñ Xaadim Mbàkke luga mi nga xam ne doom la ci sëriñ Mbàkke Mohamed kon ñi ngi leen di dig jox dig daje incha allah rabbi ci yeneen jotaay ci gàmm gi cële fële xam dañ ko fiy sang bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ñu ngi leen di jox di daje ci Wilaya TV ci yeneen i jotaay ci biir gàmm gi muy ci YouTube bi di Wilaya TV waaye itam ci site bi di Wilaya kon jàngee di mbokki internet yu Wilaya TV.